la peine asalaamaaleykum euh, yéen mbokk yeeg xarit yi ñi nga xamante ne nii yéen suivre en direct sur la télé Pikine TV ñoo ngi fii ci 6 cette foire fi ci fi ci da fii ci Dakar 15e édition journée Sëñ Bara nga xamante ni chaque année dañ koy def daw rek lañ ko deful ndax li nga xamante ni mom modi Covid bi motax pikin TV ak sa son délégation déplacé wu ñëw ba fi féké li nga xamante ni mom modi journée bi nga xamante ni mom lañuy la ñuy amal Sëñ Bara fii ci CICES euh, euh, journée bi nak ñu ngi ci ak ay doomi Sëñ Bara ñu ngi ci ak njabootu Sëñ Bara gi yëpp ñu ngi ci ak njabootu murid yépp waye tamit njabootu l'islam yépp ñu ngi tok ak ki nga xamante ni modi moo di Cheikh sëñ maam Cheikh ñu fas yéene ko bàyyi rek mu tënk tuuti rek ak suñu mbokk internet yi naka la gisee journée bi ak wàccaay bi ba lii lépp yemb tey loolu lan moo ko waral sëñ bi ñu ngi lay nuyu. jërëjëf ba ngi leen di delloo nuyu ak ziar euh, di nuyu téléspectateur Pikine TV yëpp. Mm-hmm. waaye di jiital ci nuyoo bi euh, sëñ Youssou. Mm-hmm. Euh, nga xam ne moom taalibe kër gi la. Mm-hmm. Youssou sëñ Xaadim mooy léppam. yàgg na ca Pikine. yàgg na ma koy fekk Amérique. muy nit ku bax ko xamne ne kóllëre sa suné ñu koy koy li ci ñun kon tay bis bi bu dé bisub do mi seigne khadim awba taxawal ko muy seigne bassir mbak khadim awba ah buñu gesso gis ñu Pikine TV te gis télé yépp day mel li wara mat amna lu manki ba tax na chaque année non ngeen koy défé magal Tuubaa tam non lay amé mhm. ah kon ñu ko ci sante bax di leen ci gërëm yéen ñëpp mhm. di ñaan yalla ah, seen télé bi seen chaîne bi mhm. yalla dem ba nek chaîne bu mag bo xamne dañ koy dégg ci réew mi ñëpp diko japp diko di ndax euh, yéen a ngi ci gox bu bu bu boo xam ne askan wu baax ñoo fa nekk. Mm-hmm. yéen gox bu kawe muy Pikine macha allah ngeen yi xool lépp lu ko yokk waaye yokkaale Sénégal yi koor réew mi. Mm-hmm. donc kon loolu jëf ju rëy la te loolu moo leen fi indi tey. dëgg la mu leen tey ci sunu équipe Cheikh Malamine Bara bi nga xam mooy 15e euh, xëy na sax di def nañ ko kon ci 18e la ñuy nekk. waaye Covid bi fi jaaroon. Mm-hmm. depuis 2021 wala 2020 lañ ko gëj a def. ba ren muy 15e édition ren nag ni mu demee. Eh, dafa am lu muy dafa am lu muy wundu ndax limi wundu moy day melni nit ñi dañoo namoon journée culturelle bi ndax yaaka na ñepp teg ni seen bëtt tey li fi dajji ci doomu adama ci ay nit qualité ci ay nit diiné ci ay nit ñu baax ci ay gor da na ko da ngay melni Sénégal gépp fi daje tay ndax boo wootee tarixa yëpp wawon kaolax kene ba ndiasan ñëpp tew nga woote kon ñu baax ñepp dajje opérateur économie yi daje maanaam am dafer yi dajje Lol day melni senegal kep dajé donc kon loolu nak li mana ci mëna a jàngate ne euh, borom bis bi nga xamné mom lañ ko def mu Cheikh Lamine Bara may ko ko yalla suma subhanahu wa taala may ci euh, nit ne waxuma en tant que mu nek nitu yalla way xam-xam bi ko yàlla suma jaglél euh nitu yermane kim nekkon euh nitu social kim nekkon ko xamné fajj ne faj aajo rek la lan def ak ñaanal nit ñi di leen tun seen borom pare di leen jàngal seen euh lol lay wone yalla nak bu soppee ab jaam même ñi ko xamul sax buñ déggee turam rek sopp ko bëgg ko ndax xadisu xudsi yi jibril alayhi wax na alayhi salaam wax na yan sansan boog wax na ne yàlla bu soppee ab jaam euh, dayoo jibril ne ko sama jaam diw sopp naa ko jibril siiwal ko jibril di ko siiwal ci asamaan yi ba mu wàcc ba ci suuf wàcc suuf nag ngelaw la la ko ca ngelaw la koy sol sol ko ci ndox mi ba képp ko dégg da nga koy sopp da nga koy bëgg sama lañu baar loolu ko yàlla sunu defal ba tax na tey di fi dajee euh, da xam ne Euh, ku liggéeyal yàlla la ku yàlla subhaanahu wa taala may la ba tax na euh, euh, sénégalais yi dañ ci mën a jàngate lu bare bare bare bare dañ ci mën a jëli lu bare bare bare ndax réew mi dafa soxla bis yu mel nii ndax réew mi politique yàq na ko wax fii wax faa xool yi tàng dëkk mer loolu yóbbu nit ñi bare bare bare daanaka kàddu ñagas la ñuy waxante loolu lépp politique moo ko waral kon jaadu na bis yu mel nii bu amee bi wala boog jaadu na ñuy keree boog taxawal bis yu ngir mën a euh, euh, indiwaat doomu aadama yi tuut indiwaat senegal yi tuut ci diine waaye indiwaat leen tuut ci ngor ci mbaax ci dal loolu dafa am solo te bis bi euh, dafa dafa dafa yéeme tey ndax am na ku ma wax léegi ne ma li ko gën a neex ci bis mooy li fi daje ci ay senegal li fi daje ci mbooloo li fi daje ci tarix li fi daje ci nit yi diine yi te kenn dégg fi politique ne loolu du koy yéem ndax bis bu toll mel nii ñu koy taxawal ci réew mi te kenn te kenn tudd politique lool lool loolu bëriwul. li jaaxal ñëpp lool loolu ñëpp nemmeeku mooy naka ngeen def ba mën a réussir li nga xamante ni dajale mboolem luy tarixa dajale mboolem luy ñuti ñitu diine te kenn ku si nekk bi nga fi ñëwee kenn xàmmeewul kan mooy kan ban taxawaay ngeen am ba mën a réussir lu mel noonu. waaw loolu day delluwaat sa Cheikh Mamadou Baar ndax suñu baar ak Kajoor wàllu Kajoor lañ ko daan dox Kajoor googu dafa daan jëflanteeg ñëpp suñ Tuubaa féetlu woon ko fa bu daan jëflanteeg xaadir yi daan jëflanteeg tijaan yi daan jëflanteeg ñëpp ndax ñoom ñun ñoo xam nag léegi kii xaadir kii murid la kii ñoom xamuñu woon loolu ñoom julli lañ xamoon mhm. ñoom jullit lañ xam macha moo tax ñoom loolu loolu loolu lañ bind bàyyi fi loolu lañ def lépp donc nag loolu bu fekkee ab sëtam ñëw na mënut a mënut a jaar fu dul foofu mooy Cheikh Amadou Cheikh Amadou Bassirou mhm. suñu xaade ooba moo tax mu jaar foofu li muy def du ko wax ne yëfu murid kese da déedéet da cee da cee yaatal ñëpp da ci dugal ñëpp loolu nag muy beneen njàngale boo xam ne Sëriñ Tuubaa loolu lañ jàngaloon boo demee alxaaji Maalik loolu la jàngale mag ñu baax ñu fi nekk ñëpp loolu lañ jàngale mm-hmm. moo tax tey gis ne ñëpp fi ñëw tarix yëpp kenn ko ni ko waxee da nga da nga gis du la bégal mm-hmm. gisu lu sedd sa xol déggoo fi lenn loo xam ne da nga naan ah lii de waruñu ko léeg lañ ko doon mm-hmm. lépp jaar ci yoon macha allah taala tey Sénégal yëpp bég ñu toog ci kër yi ñëwuñu doon ko seetaan ñëpp ko seetaan en direct mën naa wax télévision yi ëpp lépp def nañ ko en donc te loolu xëy na ci yëf yi àdduna rek lañ koy dañ ko daan miine mhm. waaye tey journée culturelle koo xam benn nit a ko taxawal macha allah ànd ko comité d'organisation mhm. euh, ñu télévision yëpp mën ko wane loolu loolu nekkul lu yomb waaye nag pas-pas la laaj mhm. jom la laaj ful la laaj ngor la laaj engagement laaj loolu la Cheikh Mouhamed Bachir def ci lépp nag moo tax bu nit ñi wuysee tamit wuysee ko ak xel mu rafet wuysee gën naa dolliwaat ci réew mi stabilité gën naa dolliwaat ci réew mi ak soppante bëggante te bu amee rek yu bare bari ñuy coow ak yi nga xam ne ñu ngi naqar nit ñi loolu ba waatee dañ Mbacké ñu seetlu ne ndaw ñi ku la jox bopp la loolu depuis depuis ci Pikine euh, ngeen di ay lanceur d'alerte bu ngeen waxee nit ñi nit ñi déglu leen fi réew mi toll nii ana ban message ngeen di lancé ndaw ñi rawatina ndaw ñi nga xamante ni dañu tàmm di leen defal lavage de jëmale ko ci ay jàkkaaki juma ana lan ban soññe gay wax jëme ci ndaw ñi. li ñu soññee ndaw ñi rek mooy am nañ Sénégal ñàkkuñu ay référence Sénégal ñàkkuñu ñu ñu war a roy ñàkkuñu ay borom xam-xam kenn ku mel ne Cheikh Mouhamadou Bara ngi nii. Mm-hmm. ñu taxawal ko bisam kon kooku mën nañoo roy ci ay jikko mën na roy ci léppam. Mm-hmm. waruñu jigéen dara waruñu abaan dara. Mm-hmm. xëy na réseaux sociaux yi Euh, di indi yeneen xar kanam wala di indi yeneen wax wala yeneen yeneen yeneen culture yoo xam ne xamuñu ko woon. Mhm. ba tax na journée culturelle yi nekk lu am solo loo xam ne bu ci ndaw ñi dee xool njàngat yi ci am ak ñu baax ñu ci mhm. ñu war a gën a dolli góorgóorlu ndax doomu aadama bu ne dañuy wax ne aw waxtaan la. seen la leen baara tey ko mooy nit ñi daje jàng alxuraan karim fàttali ko ay jikkoom fàttali ko léppam donc nag ndaw nag war naa bàyyi xel ne ndaw day jeex li fi des mooy fàttaliku fàttali googu nag fekk sa mbir teewoo ko woon yoon wala nga topp lii nga xam moo am ci réseaux yi eh, di def ay révélation di wax yoo xam ne wax yoo ànd ànd ànd ko ay teggin dañ mm-hmm. mën nañu wax ne daanaka ëllëg eh, maanaam dañ koy fàttaliku ci yow te loolu wala yas billahi taala même yow boo fi nekkut da nga fi bàyyi njaboot da nga fi ay bàyyi ay mbokk mm-hmm. loolu nekk loo xam ne lu doy waar lay doon kon nañ xam ne eh, dund àdduna lu am solo lu am valeur la mm-hmm. dund gi nit da ko war yàlla mi ko jox jox ko xel jox ko lépp lu mën doon da ko yittil ñor ko moo tax mhm. ndoobaa war naa jéem a defar boppam war a defar histoire am mhm. war a defar gannaaw war a defar léppam sinon wala yaas billahi taala ëllëg da gàccal sa bopp gàccal sa askan gàccal sa lépp mhm. kenn suñu kenn bëgguloon euh, ñu naan sa maam moo fi waxoon ne war ma fa bindoon lee loolu yàlla ci yàlla sa borom sal dama tax na nañ delluwaat ci royukaay yi delluwaat suñu kilifa diine yi ñu ko sëñ Babacar Si Mansour gis nga ko sëñ Mahi Niass gis nga leen ñooñu baax ñooñu ñu ñu delloo seen i keppaar ak seen i ñi nga xam ne dañoo topp seen ginnaaw mhm. di leen waxal lu baax ak di topp seen digal mhm. yooyu yaakaar naa bu ñu ko defee yu bare bari yi xaw jamono ndaw ñu dañ ci mën a mucc waaye ndax mhm. ndax ndaw daa war a am kilifa am kilifa li am solo boo ko amee am nga solo boo ko amoo solo ku wér yomb bu wax loolu sëñ bay jaxte waxal Mbacké fi ñuy lan nga ñu si mën a wax sa diggante ak waa Pikine. Pikine bu yàgg la ndax suñu waajur suñu xaadim aw ba Pikine Icotaf moo fa njëkk a samp daanaka mën naa wax kër goo xam day jàngale kër ga Youssou mi xam na ko fa lañ ko defaree mel ni hmm. Youssou ñoom ñëpp fa lañ nekkee fa lañ jébbalu suñu xaadim aw ba ànd ak moom mbir mu yóbbu leen ci yàlla subhanahu wa hmm. euh, kër ga da ko doon bind alxuraan da ko bind lépp <clears throat> fa la taalibe bi daañ daje fa lañ daan jullee fa lañ daan mu leen di jàngal di leen wax di leen teete ñun amuñu lu amuñu di Pikine ndax ndax xam naa ndax ndax suñu waajur fa la fa la suñu waajur fa la féete kon moo tax ma ne bu ngeen jógee ba euh, taxaw lu mel nii macha allah tabaarkalla def ko Pikine ak popularité ba fa nekk mhm. macha allah tabaarkalla ak pop ba fa nekk ak na ne Pikine bëgg naa bay waaram ci tool bi mhm. bëgg naa bay waaram laaj ci ci ci réew mi mhm. ba tax na yéen ñu ko def euh, euh, yéen a ngi a ngi yéen a ngi a ngi participer ci ci dalu rew mi yéen a ngi hmm. ci sensibilisation ndaw yéen a ngi ci lepp lu man doon jeuf kon ñi ngi leen ñaanal dal yalla yalla gëna a yalla gëna a taxaw seen bi hmm. yalla yobbu ko bu mu nekk seen yi gëna a barki seigne touba barki borom bi sax mo leen salaamu alaykum wa jere jeuf mbacké ñu ngi koy sant bu baax di gëreem de ngeen kaddu jere jeuf mbacké de ngeen kaddu yu rafet yi nga xamantene ni yëkëti nako ci bëss bi nga xamantene ni moy bëssu bésu di seigne mohammed Lamine Bara euh, ni rek la mëna a mel ndax tamit défar lañ leen xamé fekk lu xotteeku ñu diko ñaw Mbacke li rek lañ leen xamé té tamit ñu melni yeen tamit seeni kaddu ndaw ñi fi ñu toll réew mi daf ko soxla ndax bu ngeen waxul ñeneen dinañ wax ci seen place té bu boba yit mënu ñoo wulbeuti ndaw ñi wala ñu yaq li nga xamanteni ni mom modi réew mi kon mbokk yi li mo nekkon liggéeyu pikin TV euh ah, ah, ñu ngi leen di sante bu baax di leen gëreem yeen suñu mbokk internet yi fu way mëna nekk duñu sétane ñu ngi lay sante di la gëreem bu baax baax di leen jox dig dajé benen yoon sur la télévision pikin TV jël ngeen jëf Thank you.